asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi jotaat nanu ndigal lu bàyyi ko ci xalif général des mourides cheikh mouhamadul muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér jaar ci cheikh mouhamadul bachir ibnu sëriñ abdou xaadir mbàkke mi nga xam ne moo yore kàddu yoon wi mu di ko ñaanal moom itam yàlla dëppaleel ko yaakaari mag ñi ak yéeneen mu teew ak ki nga xam ne ndigal yooyu saa yi jógee ci moom la jëm si mooy Serigne Cheikh Mbacke moom fi Abdou Latif mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi ni mu ko baaxoo defee saa yu jotee ndigal dana dem Mbacke Bawal ci waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall leeral leen ndigalal sëñ bi daal di woot na woon ak jëwriñ yi nga xam ne ñoom la ko seqal loolu moo waral jotaay bii tey muy mbalem Touba mi nga xam ne moom lañu war a tàmbali incha allahu taala dibéer jii mu jëm dimanche jii mu jëm di benn mën naa doon benn pan ci weer wi. mooy mooy ci nga xam ne ci la ñuy tàmbali liggéey bi loolu nag moo tax euh, jëwriñ ñu ko baaxoo àndal Serigne Mourtala si mi ngi teewal fi jëwriñ ñëpp ñu jox kàddu gi Serigne Mourtala si mu ubbi jotaay bi bu ko defee nag ñu door a jox sëñ bi kàddu gi sëñ Mourtala bisimilah. bisimilahi rahmaani rahim barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu bokki ji bokki taalibe yi noo ngi toog suñu kilifa gi Serigne Cheikh moom sëñ Abdou Latif mi nga xam ne moo ne ci bopp liggéey bii nga xam ne moom la sëriñ bi liggéeylu ni ko sëñ Omar waxee waaye noonu suñu kàddu dañ koy tàmbalee ci moom rek muy joxe ndigal ci mbooleem taalib yi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Touba fu ñu fi mën a nekkee nag waaye rawet na ñi nga xam ne dañoo dëkkee ci dëkk bi waaye rawet na ñi nga xam ne dañoo dëkkee ci gox bi ñoo ñu dëkkee ci biir dëkk bi mu ngi tàmbalee ci daayira yi ak délégué de quartier yi ak chef village ak seex yi nga xam ne dañoo yor ay pénc te ay taalibe ànd ak ñoom sëñ bi nee na ngi soññ ñoom ci liggéey bii nga xam ne moom lañ dëgmal muy fas yéene setal Touba ana ñum ca teg mooy borom oto yi ñi koy dawal ak ña moom oto yi tàmbalee ko ca transporteur yi ka ca gën a mag ba ka ca gën a jege ka ca gën a doon gën a doon ndaw ka ca gën a bari ba ka ca gën a néewle sëñ bi nee na ñooñu ñëpp mu leen koy sant ndax kenn ku ne pas-pas rek la ciy indi ñum ca teg mooy chauffeur si nga xam ne ñoom itam ñooy dawal oto yi te ñoom lañ ko jox ñu war a ànd ak sëñ bi liggéey bi sëñ bi nee na ngi leen di soññ di leen fàttali liggéey bi ni ñu ko baaxoo def rek te daan ko ànd daan ci am daan ci am ndam si mu ne loolu lay fàttaliwaat waaye yokk na ci dara nag ren mooy fi nga xam ne foofu lañ daan tuur mbarit mi muy kàmbi daaru salaam ya dafa mel ni am nag coppiku waaye bàqee lañ bëgg ñëpp dem fa buñ ko waxee nag baaxee na mu war a na war a mel ci dugg gaa génn ga itam nañ ko bëggee woon ña ko ñuy defee te yaakaar naa ne ko itam da xam ne doo fa fekk leen loolu naqari loolu itam muy fàttaliwaat sa force yi yoonu daaru muxti mi ngi ñaan képp koo xam ne ab ab mbootaay nga yor wala ab daayira nga yor wala chef du ba tañ jox la oto nga jël ab convoyeur teg ci oto ba nañ ñëpp yóbbu ca kam bi bàq yee nañ fa tuuri mbalit ma te bañ ko yóbbu yoon daaru musti bañ ko yóbbu ci xur yi bañ ko yóbbu ci ay kër bale buub sànni ci àll bi la ñu wax loolu la ñu tegaat mooy transporteur yi nga xam ne dañoo ne ci biir dëkk bi ci liggéeyub Sëñ tubaab yi ñu bokk ci war cee dugal seen loxo mboolem ña ca gaaru Dakar ba ak gaaru taxi yi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk bi sëriñ bi neena na ñooñu itam bàyyiwu ca kenn mi ngi soññ ñëpp ka ca gën a doon mag ba ka ca doon gone muy regroupement yooyu nga xam ne ñoo ànd yor sofóori taxi ak galas yi urbaine yi mboolem galas yooyu bàyyiwu ci kenn ana ñu ci tegaat mu ngi ci tegaat borom sareet yi nga xam ne nga ne dafa tooy na ndox yoo xam ne neexut ñu ngi ñaan borom sareet yi te a sonn ndax ñu ngi yi nga ne ñoo ne ci biir dëkk bi quartier bu ñu mën a nekk te ab regroupement ne fa te yor sareet sëñ bi ne dafa bëgg bu bis baa muy dibeer jooju ñu jël seen sareet yi dimbale oto yu mag yi ci ginnaaw ndox moo xam ne mbari dafa ne ca gannaawam sareet bi jël ko sëf ko indil ko ko fu gën a jege ba borom oto bi jël ko rek loolu tam sëñ bi ne mi ngi koy ñaan borom sareet yi waaye di soo ñaat nag ñan mooy commerçant yi ci dëkk bi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk bi di fi liggéey te liggéey bi lépp muy teraangay Sëñ Tuubaa ñu koy jariñoo léeg-léeg ñu indi fi conteneur mu ànd ak i ci mbedd mi léeg-léeg ay ak taxal lay lay lay firi kon ñooñu itam seen loxo war naa dugg ci liggéey bi te liggéey bi kenn du ne mënu ma cee dugg ndax nu ma ci duggee kenn du ko wax moom boo jëndee alal ñëw def ci bokk nga ci liggéey bi soo ñëwee sa bopp ànd ci liggéey bi bokk nga ci liggéey bi soo toogee añ yot sëñ mu yi bokk nga ci liggéey bi soo jëlee sa xaalis def ko ñu jënd ko gasoil bokk nga ci liggéey bi kon amul benn nit bu ne ci dëkk bi boo xam ne war ngaa lay wala nga ne bitim réew wala foo ma nekk ba mën a lay ne liggéey bi mënu ma caa bokk ndax waxtu ne sëñ bi wane na yoon yoo xam ne yombal na liggéey bi ba kenn ku ne la nga ci ci def loolu nag mu ngi ci soññiwaat ñooñu ñëpp borom sareet yi ak transport ak commerçant yi waaye ñi nga xam ne dañoo ne ci biir dëkk bi ma leen koy fàttali fu ma toll nga doon garage su mécanicien ne ci biir dëkk sëñ Tuubaa bi muy taq nit ñi bala ñëw ci yow nga mel ni dara xewut loolu kersa la na ñu ca teguwaat ministre mita ministre bois yi nga xam ne ña ngay dagg bant ngay bale ñëw ci ñoom duñ am xelum sax may la nga bale ba jàll waaye dañuy dagg seen i bant muy fëndal seen yoon nekku ci ministre métallique itam sa classe nga noonu waaye yow kay boo baliwut war ngaa mën a tëj ci ñaari fan yi wala benn fan bi bañ bale noppi nga ñëwaat sa place gannaaw yow nangu woo bale ñu nangoo bale ñëw di la baleel war ngaa mën a muñ muñal leen bañ bañ bañ bañ bañ bañ bañ jóge fa yow nga doo tàmbali sa mbale nga doo tàmbali sa liggéey kon sëñ bi nee na mi ngi bàyyi loo xel ñëpp ne liggéey bi liggéey bi sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa nag mi ngi mel ni tibb seex rek moom bu ñu tegee ñam wi ku tibb def sa biir kenn du la tibbaale ku tibb nag seex yow rek yaay rek mooy mooy sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom lu ko waaye def rek mu fay la lu toll noonu moom nangu naa boole ku ne ci lu baax ndax loo booleeg moom ci lu baax rek yow da nga ci am lu ko lu kawe sa njot kon sëñ bi nee na mi ngi soññu ñooñu ñëpp waaye jël na du soññaat nag jigéen ñi nga xam ne ñoom dañoo ne ci waar wi màggal gi ñëwee ñuy bale su alxamis ñëwee ñuy bale su àjjuma ñëwee ñuy bale bu ñëwee sa ndaa sanaa itam ñu àndaat ak moom te seen kilifa soxna Astu Mbàkke moom sëñ Abdoulaye ànd ak sëñ bi ànd mu rafet ànd ak jigéen ñi ci dëkk bi ñëpp sëñ bi ne mi ngi leen di soññ xam ne ne ñoom sax soxna soññ leen waaye day jëlaat ay soññam rek di leen ko yokkaat ngir lan mooy liggéey bi gën a yomb ci nun ci ñaari fan la daan am léegi dañoo bëgg benn fan rek bu ñu ci dajee lépp jeex kon sëñ baa ngi soññ ñëpp góor jigéen mag ndaw waaye nag rawatina dëkk yi nga xam ne dañ ko daan soññi mu tàmbalee ci mes rek mam balla ñëw Madina ture waa tubaa Fall tubaa Belel Ngay Mbacke Bawol Mbusoobe waaye Mbacke Bawol ci boppam Daaru Salaam dëkk yooyu nga xam ne dëkk sëriñ Touba la te ñëw sëriñ nekk fa te daan ànd ak moom ci liggéey bi sëñ bi dana ñooñam ma ngi leen di soññaat ci liggéey bii nga xam ne day liggéey sëriñ Touba tañ mbooloo àdduna bépp waaye nag kon mi ngi soññi ñëpp di soññ nag ñi nga xam ne ñoo dëkke dëkk bi nag nga xam ne ñoom ñooy waa dëkk bi rek seen bopp sëñ bi ne mu ngi leen soññi kenn ku ci ne boo génnee seetal ñaari mètre sa mbedd mi ma seetal sama ñaari mbedd sama ñaari mètre kenn def ko dana yomb lool waaye tam mi ngi wax ne daay bu ne booy ñëw fexeel ba lu mu néew néew ñetti gopp bu la naa ñëw sëñ Seex mu jox ma gopp daayira ba na fexe ay goppam ndax bay dafa mënta ñàkk te ko naan dañuy bay daayira bu ne na fexe ba jël ab ay ay goppam ànd ak mboolam ñu ko jox lu fa ñëwaan nag te yàlla dogal mu ñëw fa ñu mën leen ko jox loolu daal la sëñ bi doon fàttali noo ngi ñaan sëñ bi nu àgg ci ak jàmm te ni nga ko bëggee nga amee ko noonu ci barke Sëñ Touba te lépp yomb gën a yomb nu mu daan mën a yombe rawat nag rajo yi nga xam ne dañoo ne ci biir dëkk bi tam sëñ bi nee na mi ngi leen di fàttali liggéey bii nga xam ne saa su ko mosaan sumb ci yéen lay ñëw ngeen kenn ku ne la nga mane nga def ko ci ndax sëñ bi kët kenn ku ne la nga ne rek ca nga ko mën a liggéeyee kon sëñ bi nee na ngi soññ mboolem rajo yi ci dëkk bi bàyyiwut benn rajo dañ ba ñee tudd aw tur di juum waaye nañ xam ne daal rajo bu ne ci dëkk bii ci département Mbàkke bii sëñ bi ne mi ngi lay soññ di soññ nag mboolem seen kilifa nga xam ne ñoo nekk ca kaw di leen liggéeyloo sëñ bi nee na bàyyiwul kenn góor jigéen mag ak ndaw noo ngi ñaan ci barkeb sëñ Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal te ko ndax liggéey bii kat moo ci man ku mën a doon ndax ba mu ko santaane santaane ko dem toog rek da ko ba noppi jël loxoom def ci ànd ak sëñ Cheikh ci waxtu ne fu liggéey bi toll mu nekk ci ak ñoom ba liggéey bi ak si tey ci loxoom yàlla na ko yàlla wéral kattanal ko dolli ko dolli ko doole ba mel ni ndawul ñaar fukki at ci barke sëñ Tuubaa bu mu yëgee si dara ci aw yaram wuy metti ngir liñ bëgg ci moom mooy mu liggéey sëñ Tuubaa te moom xam ne na liggéey sëñ Tuubaa rek ko ñor te lu lu muy liggéey sëñ Tuubaa nu ànd ko moom ci barke sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf noo ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo yëpp mbokki taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp waa waa Tuubaa yëpp ak fu taalibe Sëriñ Tuubaa nekk ci àdduna si ma lay te la jot li nuyoo fi Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax kàddu yi nii kàddu kat ay kàddooma ci ndigalam rek la jógee te ab liggéeyam la itam liggéey bi nga xam ne nag yàgg na jox ndigal li bu ko ay kilifaam joxee tax li Cheikh Mamadou Lamine Bara mi fi day Serigne Touba joxe woon ndigalul nañuy setal Touba bala ñoo màggala si Touba dafa waxoon nañuy setal dëkkub Serigne Touba bi balaa gani Serigne Touba yi ñëw fekk na booba danoon dox ci mbedd yi gis ko mbedd yi wax ajoo laabal at moom itam sëriñ Muntaxa moo taxawoon màggal gi te mbale mi moo ci jiitu woon moo ko doon taxawul boppam ba ci kër sëñ Tuubaa gi lay xëy si laxasaayu yabal nu ca waar wa joxoon man ndigal itam ngir ma soññi bokki taal bi yëpp ci lañ taxawal itam taxawaloon itam comité bi saytu màggalu Tuubaa ñu taxawaloon ca commission assainissement dënk dénk ma ko maa ko bokki taal bi yëpp ba ca déwén sa itam la ko sëñ Baara waxoon ne ko Cheikh Basirum sëñ Abdou Khadir di taxawal màggal gi sëñ Basiru itam waxoon sëñ Muntaxa ne ko nga bëgg nga boole ma ci sa njaboot ñu ma jàppale ci liggéey bi sëriñ bi boole noog moom sëriñ Basiru itam tànnalaat nu nu féete wàllu mbale mii wàllu setal dëkk bi moom nu ko tànnalee nag tegoon na ci yoon na ndigal li nañ koy jot li si añ sëriñ Cheikh jëmb mu jiite njabootu Cheikh Ibra dal ko jottali dëkk bépp nag ci loolu nag lan doon nasee nas boo xam ne doon noon góorgóorlu ba ku dëkk ci dëkk bi danañ la teg ci yoon woo xam ne boo fasoo bokk ci liggéey bi da ci mën a bokk ku dëkkul ci dëkk bi te dëkk ci aneer yitam itam danañ la soññu gàttandu la jàppale la ba nga mën ci liggéey bi ku jegewul dëkk bi itam boo bëggee barkeelu ci liggéey bi dana am yoon wuñ la jaarale ba nga caa barkeelu ñu dëkk ci biir dëkk bi ndax dëkk bi ñu dëkk ñi jiit ay daayir rek lañ ni ko suñ mutlaa ay seex yu dëkk ci mpénc ak seeni i ak borom mbooloo yi ñu defaraat dëkk bi ay zone yoo xam ne dañu fa wut ay chef de zone ak ñu jiite mbooloo yi ci wàllug regroupement benn yi moo xam ña ko moom wala ña koy dawal ak regroupement oto urbain yi ak inter urbain yi ak charrette yi lépp suñu motulaa tudd na ko ba ci euh, gaara Dakar iddika jiite leen daanañ fi daanañ leen ko yëgal ñu di ci jàpp taxi interurbain yi dëkk bi yëpp mu ci tuddee Pape Mbaye rek tudd na ñëpp mbooloo yàgg na ko wax boo limee juum kon noo ngi doon woote ay réunion fii ci kër waa Tuubaa gii jekk nañ ko daan defee bu jubee boo borom mbooloo yëpp ñi jiite mbooloo yëpp ñu ñëw kenn ku ne wax sa xalaat joxe sa kàddu ñu tënkaat xalaat ya kàddu ya dellawaat ko ci ñoom ñu delloo ko ci mbooloo yi noonu lañ ko defewaat ba tey jii lañ jóge ci benn réunion ngir waajal liggéey bi liggéey bi nag noonu ko fas yéene def incha allahu dibéer yi nga xam ne day doon benn wala ñaar ci safar waaye doon ñaar fukki fan ci weeru septembre bi ñu nekk mu dimanche septembre benn wala ñaar ci safar incha allahu nu bëgg nag soñ ñëpp ba buñ ci àggatee defee nañ ko daan defee ñu dajaloo kenn ku nekk feet li laxasaayam ci pasteefam ak yitteem na fas yéene sellalal sëriñ bi dëkk bi ndax liggéey boobu noo kilifa yaa nga xam ne ñoo jiite Touba ci kanam ñoo ko daan ànd yàlla dogal ñoom waa Touba kanam ak seen kilifa ga di sëriñ Abibu ci xalaatum bu rafet ak pasteefam bu yaatu mu yàkkale woon jàpp doxin wa ngir taataay ci dëkk bi wàññiku ba bu màggal gaa coono yu bari wàññiku loola njanga ca jottali nañ ko fup julli nekk fup taali fi nekk da nga ci man lépp def nga ko ca ba njanga dajale la ñuy dajale di ko liggéeyee te noonee rek la war a deme kon liggéey booba nag ñaar rek ko séq addiyee juñ joxe ak jumtukaay yu mag muy ay ay machines yu mag oto yu mag ak i pelle mécanique ay gradeur lépp ak boroom xam-xam yu jiitu ñu liggéeyee liggéey booba ba ña nga ca mu dend ak suñ liggéey bii nag nga xam ne am na lu ñu nuróole ak lu ñu wutale noonu sunu liggéey mbooloo mi mooy génn def koo ki loxo mooy setal ndax bu ñu nee setal bale la wax bale nag ak balee koy def wala radu wala gopp wala fourchette yooyu dañ koy jël mooy mooy dajale mbalit mi tonne ko teg ko ci kaw camion bi camion bi yóbbu ko regroupement benn ci dëkk bi yëpp nag waxaan nañ leen ko ñu ngi leen soññee nañ leen daan soññee mboolem ku dëkk Touba amoo benn te bokkoo ci regroupement bi it noo ngi sàkk oto boobu nga andi ko daanaa wax ne àgg na ci ko am oto boo xam ne benn saakum ñax mën na caa nekk sa oto boobu danga war a ñu defal la ñax ndax sa oto boobu kat boo fi bàyyi ko moo ci lañ lay ci lañ lay def mu yóbbu la bàqee gannaaw oto baa la yóbbaxee nag bu fekkee nga liggéeyal ci Serigne ci setalal ko dëkkam bii mën ngaa rafet mën nañoo rafet njort ca boo demee ca bàqee gam lay yóbbu tasa faak ndimbalul Serigne Touba ak tawfeexam loolu mooy lin am lépp buñ ko attanee jaayante ngir jëmmi Serigne Touba Serigne Touba jëndal na ko fayal na ko tey ak ëllëg ndax day dellu ci aaya joojo rek na la ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul jannata kon jaayante gu nekk foofu la jëm waaye jaayante gi nag sunu jaayante mën nan koo gën a yaatal tuuti gën gaa yaatal mooy delluwaat ci njàngaleem sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa day wax ne góor yàlla yi dem àjjana taxu leen di jaamu yàlla ngërëmul yàlla moo leen di tax di jaamu yàlla mu mel ne yàlla dafa ne ca wàlla kon loolu li muy mooy ngërëmul yàlla boo ko amee da ngay am àjjana biir ak jooy bitti da ngay am àjjana yi àdduna si boo demee am àjjana jee te àjjana jooje itam mën naa gën a yaat la mën a gën a yaatoo mooy mën nga caa dem yóbbaale ci ñeneen te la ñuy wax ne dem àjjana li muy neex neex bis ba ñuy gis suñu borom moo ci dàq te yàlla na ci àgg waaye bu amee ngërëmul yàlla mën ngaa dëkk yàlla bis bu set mel la yaa ngi dëkk yàlla loolu lépp ci ngërëmul yàlla mën a bàyyi ko kan loolu mooy li alquran di wax radiyallahu anhum wa radu an te loolu nag liggéeyal yàlla ba am ngërëmul yàlla képp ko mën a maye liggéeyal yàlla nag day ay anam yaatu moo ngi ci mooy ñi ci ñu jàmb ko ci chariatul mutahara ak xaqiqatul munawara yooyu yaar nag ci la ñaari ñaari yooyu ci la góor yàlla yi daan yéegi ba ci seen borom Sëriñ Tuubaa it loolu rek la doon jàngale ba ñëwee loolu doon wane ci loolu la nekkoon di ko jàngal ñooñom di sooboo ci ngir ma ngir moom nekkoon ba àgg ci boromam te bëgg njabootam gépp jaar ca lool weesuwul yoon woowu kon nag yoon woowu nu itam li sëriñ sëñ Mountakha day wax ne buñ ci xeeb suñu bopp mooy li sëriñ Touba nekkoon ak ñam àndaloon te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ci ak ñam àndaloon bañ jógee ci dégg sëriñ Touba jël liggéey boobu ak ñam àndaloon buñ ñu ko bàyyee noonu itam nan ko jéem a téye na ko ñooñu téye woon te sëriñ Mountakha day wax ne liggéey bi kenn wuru cee doy doyal ndax ginnaaw Serigne Touba loo ko defal te Serigne Abdoulaye jàngale woo ko boo ko defal li nga man mu fayal loo mënut nga defal ko loo mënut mu fayal la jomb kon la nga cay def war nga koo defee yitteeg Pastef bu baax a baax a baax te yitte jooju Pastef boobu kat ci la Serigne doon yéegi góor yàllaam ya te nan ko def ci suñu bopp def ko ci suñuy xel gëm ne suñu borom la amal du jeex mukk te sëriñ Touba jaayante nag boromam borom fayee ko ci loo xam ba ba adduna tukki képp ko aju ci moom te jaar ci yoon moom la woon fa doon yóbbu góor yàlla yi dana la fa yóbbu lépp mi ngi dese ci rek sun yitteeg sun pasef nan jeexal sun lépp ci jaamoo ko yàlla liggéey la ko sëriñ Touba ndax sëriñ Muntaxa loolu lay jàngale ne sëriñ Touba danoon yàlla di liggéeyal yonte bi noonu nag dana war a jaamu yàlla di liggéeyal sëriñ Touba te loolu sëriñ Abdoulaye mas na ko wax ne sëriñ Touba la mu waxoon yonente bi lan ko war a wax sëñ Tuubaa waxoon yonent bi ne ko xayaat yi wa mamaat yi harakaat yi wa sakanaat yi maa sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam loolu mooy sama lépp jeexal naa ko ci biir yonent bi salaatu wa salaam waaye lu mu ci dolliwaat ñaan aw bayit ne yonent bi wakkoon amaami wakkoon xalfi wakkoon wasati fii yamini simali yaar jaayee ko ni sëriñ Tuubaa de wax yonent bi salaatu wa salaam ne ko damaa bëgg a nekk féetam fépp gannaaw daa wax ne daa bëgg mu féete ko fépp ah noonu itam loolu lañ bëgg ci Sëriñ Tuuba kon buñ jeexale suñu lépp ci moom bëgg mu féete nu fépp nan ko jox suñu lépp te buñ ca desal dara boobaa dana nangul sunu jaayante féete nu fépp te boobaa ci la amee tawféexi tey ak ëllëg ci la ñuy amee ajjana tey ak ëllëg ci la ñuy aje Sahada Tarayni ak Matlabul Fawzayni kon nan sax ci loolu kon loolu moo waral Sëriñ Tuuba buñ ci dellusiwaatee ba xalaataat danañ gis ne dëkkam bii mu tuddee mat Matlabul Fawzayni ñu tuddee ko làkkub Touba muy Toubaal Mahrousa kon Matlabul Fawzayni boobu nun dañuy daal gëm na suñ mbale mii mën naa dell ci loola mën nañ cee sakku am texeeg adduna ko àllaaxira kon nan ko ci gëm te jaayante ko ci te nekk ca te soññ ci ñëpp nooy bëgg daal ñëpp lu waay man nuñ ci daan doxe lu waay lu ci daan waaye daan doxe nga doxe ci lu ko ëpp ndax mu gën a yomb gën a matale gën a rafet luñ ci daan jële ci yiw nu jële ci yiw ëpp loola ndax suñ motulaay wax na ko ci biir waxam léegi yi woon ci ñaan bokk na ci mbale mi bu setee jàngoro ji seet ci réew mi te wax da doon ko wax ci mbale mi ci lan doon dox ba gisatuñ choléra ginnaaw màggal ci dëkk bi kon nan ci doxe ba dootu na ko gis corona ci dëkk bi ak ci réew mi ak ci àdduna sépp yàlla tëlewul dara mën na lépp yàlla na ko yàlla defal ci barkeb Sëriñ Tuubaa yal na yàlla jële jàngoro ji yal na yàlla faj aajo yi yal na dajeeg tawfeexi Sëriñ Tuubaa ba liggéey bii ndam luñ ci masaam noo am ci lu ko ëpp noo mbokk yi Tuubaa ci kanam ya ak fépp taalibe bi di liggéeyal Sëriñ Tuubaa yal na ko Sëriñ Tuubaa gàndu ci tawfeexam ba mu taxaw ca ndam ak ndimbal ba am ca aajo ji faju biir ak bitti mu delluwaat ci radiyallahu anhum wa radu anhum noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi dégg ngeen kàddu yaa ngoogu boog bàyyi ko ci sëriñ bi muy soññee liggéey bi ni mu ko baaxoo defee ak ñun liggéey la boo xam ne noo ko fas yéene tàmbali incha allahu taala le 20 septembre muy dibéer ji ñu jëm ni ko sëñ Mourtala si waxee képp koo xam ne bëgg ngaa dugg bëgg ngaa bokk ci liggéey bi am na noo ci mën a bokkee ndax liggéey bi kët ñaara ko seq mbooloo mi bari na waaye ñaar ñaara seq liggéey bi oto yi ak nit ñi oto mënut a ñàkk gasoil nit mënut a ñàkk xewlu kon nag nees ci mën a duggee bari na ak jumtukaay yi nga xam ne itam moom la ñuy liggéeyee ñu ba ñu bàyyee ko xel te sëñ bi tudd na ko kenn ku ne xam nga li li li yéwénal liggéeyu mbale jumtukaay yooyu lu ci ñëw doyut. bu ko defee ñi nga xam ñi nga xam ne itam yàgg nañoo jàpp ci liggéey bi muy suñu kilifa yi joxe ndigal li te yàgg cee jiitu noo ngi dalal suñu xel ci ñoom ndax ñoom yàgg nañoo wane yoon muy Cheikh Mamadou Mountakha mi ak Cheikh Mamadou Bachir at mu jot ñoo ci jëkk ñoo ci man te loolu wane nañu aw yoon kon noo ngi leen di sant di ñaan ci liggéey bi sunu borom gën leen fee yàggal te wéral leen te kàttan na leen ba ñu àggale seen yéene yàlla nañu yàlla déggaloo seen positif ci barke sëñ Touba kon na woote baa ngoog mooy dibéer incha allahu taala ci la ñu tàmbali mbaleem Touba mi noonu ko sëñ bi waxee sëñ Moussa si waxee ko ni kon na ko ñëpp bàyyi xel dibéer la incha allahu taala ñu tàmbali liggéey bi niñ ko daan defee. ànd ko ak ak bokk yi di ñaan sunu boroom tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim àggale ko ak alhamdulillahi rabbil alamin set ak setal bii ñu xewal ci mbedd yi dañ ko war a ñu tàmbalee ci dënn yi ko xool ganaar ba naw ko ngir setam ga daa yërëgul ngumoom la foon xetam ga set ak jullit na jëkk foot xolam ba génn ca waaju wedd yàlla buur ba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu